man baal ma comparé rek baal ma comparé loolu jarul mais est-ce que xatul lii nice quoi lii nice pourcentage jarul pourcentage jarul pourcentage jarul micro central bi ngeen di liggéey micro central bi ngeen di liggéey mor C'est bon jërë ngeen jëf mbokk internet yi ñoo leen nuyuwaat baax a baax di am contentement ak mbégte si yéen bu baax tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy parcelle open press Petit mu jëm bis bu solo le 29 incha allah rabbi Fouta production nag moo ñu foofu grand combat boo dox si diggante Pokola Balde ak ki nga xamante ni mooy Gackou 2 moom euh, ki nga xamante ni mooy Petit Lo war fa laale ki nga xamante ni mooy Jackson 2 wala nga yéen Jackson ñu fekk ko rek bàyyi ko mu nuyoog yéen ñëw ak ñi nga xamante ñoom laa bokk liggéey bi ñu questionné bi nuyu naa la ziar naa la waaw ah, maa ngi di wax aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw boo ma sant yàlla bi di sant sama ñaari waajur bu baax a baax di waa parcelle 1 waa waa waa Thiawlène di waa Lac yëpp xam nga di leen bu baax xam di nduróog waa parcelle di sant waa Cambérène waa Grand Médine Grand ñëpp eh, di sant ñëpp ay kii moo ci des rek instant dañuy maintenir rek ba ba et eh, di ñaan yàlla defal ñu sutura baax incha xam nga adversaire bi. Ah, xam naa ko ci làmb rek laa ko xam xam naa ko nii ci làmb rek. a gëstu si moom ay qualité ak yooyu noonu. eh xam naa ko ah. ci làmb rek laa ko xam wax dëgg jàmbaar la xam champion la ay eh, mais dañuy ñaan bu jour waaye incha allah yàlla taxaw ñu defal ñu sutura. seetaan nga diggante ak Lat Dior. eh seetaan naa ko. ay eh, mais man bokkuma ak adversaire yooyu bokkuma ñoom Lat Dior bokkuma ak wax na ay adversaire yu métti man ah baax na mais moom doon bokkul sama yoon. dama koy fël jàll incha allah dama koy faxas rek dem. Jackson day xeex de. non Jackson du xeex da ngaa day xeex day bëri. non du xeex day day rek. nag mooy microcentral bu ñëwoon dina mën a faciliter suñu liggéey quoi microcentral non bàyyi ma déglu gars yi bàyyi ma déglu gars yi Badou Lo xale bi ngay bëreel day bëri day xeex bokkul ci xale yu gën tàng si làmb ji waaw yàlla baax na yàlla bëri na sutura incha allah ñun tamit ñu xeex di ñu jàngal bëre dañuy ñaan yàlla bu baax bu ñëwee ba ci la bi yàlla defal ñu sutura suturaal ñu dimanche incha allah yi nga mujj a bëreel ak Jackson ñoo yam ah man adversaire la ci man rek wallaahi ni ma doon préparé combat bi laay préparé combat jël na la bëri woon lu muy génn dégguma nga ne dafa dëxuñu dafa dëxuñu boobu léegi génnul gisuma mais loolu lépp moom la loolu moom la concerné yee man man man lijjanti moom moom lu muy def ak lu mu du def l'essentiel man ci li ma war a nekk yee man maa ngi ci quoi man maa ngi ci samay entraînement li ma war a nekk man maa ngi ci bu baax waa bàyyi ko bàyyi ko ak man rek bàyyi ko ak man rek wuyul wuyul jaara jaara mais maa ngi tontu nee na nga xuus ci question yi nee na bu fi nekk tourné autour du pot yee maa ngi tontu ci question yi baax li nga may laaj maa ngi la koy tontu mais dafa mel ne da ngay da ngay kii kii yow booy bi quoi da nga sous-estimé quoi dafa mel ne nawloo booy. nawloo booy bi sous-estimé la comme yeneen adversaire laa wax saa waaye la comme yeneen adversaire yi. mais doyoo booy bi la est xam nga ko tàngaay booy bi. xam naa ko ndax naa ko ñëpp ne ma bëjuloo am nga combat et loolu daf ma yokk jom et eh, man tamit mën liggéey bu baax xam nga eh, di bu baax bu ñeggee ci bés ba yàlla suturaal mu ma ndam incha allah ah, ñu ne nekk ah, moom képp kuy téye micro yónni na la question boobu nee na boo leen ngeen ma Petit Lo est-ce que jour dana taxaw dëggal boppam comme ni mu doon def yeneen loolu ba ko waxee rek yéen waroon ko tontu yaa yéen duñ ko tontu yaa koy tontu aussi waroon ngeen ko tontu yéen sama combat musul am ma teg benn baat ci ginnaaw eh, te nekkul moom moo ma koy defloo insha allah nee na lamb de ah yeggaguñ ci le 29 dinañ eh, dina leer insha allah bi nga dama eh, ma yëpp damaa xeex saa waay dàq xeex ku dàq xeex ak ku dàq bëre bu ñu bëree ba pare xam mais lan la dee si diggante bi déggu ma luñ la dee si diggante bi non mais ma dara xam nga nekk ak sama ñoom papa yaaram xam nga ak sama papa Modou Lo xam nga ñoom tontonte baax ak ñoom laaj Pythagore ak ñoom Franc xam nga ak sama yaay Adja madame Lo xam nga gars yi gars yi di ma teg waaw gars yi di ma teg lu métti wallaahi adversaire bi nga xamante ni bi nga jëlee ñëpp dinañ dafa diis bokk na si adversaire gën a diis adversaire yi nga mos jëlee yëpp tey lan nga bëgg wane sa diggante ak moom bisu le 29. mais eh, man sama combat yi ma mujjee bëree heure bu ma jëlee adversaire ñu ne Petit Lo warul jël gi te bu ma ñëwee yàlla suturaal ma et eh, damay ñaanal rek bi baax yàlla defal ma sutura incha allah comme ma daan suturaalee yi passé ar bi ni prib Petit doo jël sa tànk ah, ñu moom mbot ko mbot bu rek na nga bàyyi Jackson di egg si ba bés ba incha te moom li muy indi li muy indi lijjantiwu ma ko moom moo ma concerné incha allah sama ñoom papa yaaram ak ñoom papa Lado ak samay kosu laat xam ak sama papa papa yaaram daa doy waar de moom yaaram yaaram géy mooy loolu ñoom teg nañu lu métti wax nañu na laa koy daane incha allah dañu xaar bés bu ñëw rek waaye yëpp wax nañu li mu lay daane ah nga léegi ba le 29 le 29 yaaga si ginnaaw ni moom Petit Lo ginnaaw biñ la nuyoo nga dalal ñu tey ca parcelle xam combat le 29 buñ ci tegee ay 5 jours 6 jours sa papa war a bëre tamit di le waa des arènes est-ce xam nga li lay xaar ci waa parcelle pour nga ubbi buntu mën leen wan yoon bi. eh xam naa ko bu baax li may xaar dimanche eh xam naa ko bu baax incha allah moo ñu ñaan bu baax yàlla taxaw ñu suturaal ñu eh, xam naa ne man maa war a daan incha si kattan yàlla maa war a daan eh, ñëw ñëw toog si jox ko ko xam mu daan. le 6 ñu feetu incha allah. est-ce que dana yomb. bu neexee yàlla su ma daanee du ma jubilé sax damay bàyyi ba le 6 le 6 la allah. mais loolu pression si yow. ngay bëree en même temps sa papa di bëri. Ah, ban pression man ak moom ñoo bokkoon di préparé te lu ñu wax di coow eh, mais bàyyi ma ginnaaw mu ko eh, bu ma tooyee di yëkkati lu diis gars yi bu ñu ma bëggee wàññil mu ne leen na yëkkati xale la te dafa am combat eh, bàyyi ma ginnaaw Eh, naan ma jógal di ma yee may dem entraînement xam nga di ma defal lépp waaw wallaahi. mais boo boo xoolee làmba jooju ak coow bi mu am Pikine parcelle jàppal Ama jàppal Modou coow lu yëngatu intervenant yi di wax. cooli amet mooy bëri cooli bari na trop quoi eh, cooli bari na trop xam nga du combat boobu bari na trop eh, wax ji bari na mais ñun dañu ñaan yàlla nañu yàlla suturaal ngay wax le 29 dimanche bi nii dañu ñaan yàlla ñu ndam suturaal le 5 aussi yàlla suturaal ñu mayaat ñu ndam ñu ngi ñaan ñu ngi ñaan bu baax yàlla defal ñu sutura incha allah ku ni mobilisation fan nga toll si côté mobilisation bi waa di woo waat waa parcelle bu baax a baax a baax waa parcelle ñu ngi leen woo bu baax heure ba 26 di baax ñu xam nga baax tonton Deba tonton Deba maa ngi koy woo waat baax ci combat bi si kii xam nga Modou Ndiaye Espagne borom Ibiza eh, maa ngi koy woo baax moom jàpp na si combat bi Go Faye ñu koy waat bu nga ñu koy waat ci combat bu baax xam nga sama papa Mourou xarañ la di ko ñaanal bu baax yàlla suturaal ko eh, le roi jàpp na ci combat bu baax ñu koy ñaanal bu baax